coalition Yewwi Askan Wi daa mel ni rek ñoo ngi ci guddi bu bër setagut gannaaw bi ñu annoncé risque de rejet bu seen coalition bi le fii ci Dakar ndax rek ñàkk wax ma li nga xamante ne mooy règle de la parité en vigueur bi boobu leen dogal nag dafa daldi rek jur polémique ci diggante ki nga xamante ne mooy maire bu Dakar di Barthélémy Diaz ak direction générale des élections waaye tamit dafa daal di jur li nga xamante ne mooy réero ci diggante ñii di leaderu Yewwi Askan Wi a gannaaw nag bu mbir mi xewee ki nga xamante xamante ne mooy Ousmane Sonko dafa daal di rek euh, finalement wax ak ki nga xamante ne mooy xalifa euh, Khalifa Ababacar Sall ndax rek moom dafa jàpp ne xalifa dafa def ay conneries di naan xalifa Sall na ko gérer euh, moom kese ba tax na rek moom du woote benn mobilisation waaye tamit du yeey yàbb bi ci problème bi nga xamante ne coalition Yewwi Askan Wi lee am na ko ak administration bu yor organisation élection yii la ba tax na rek mu ne kii nga xamante ne mooy Khalifa Ababacar Sall na débrouillé wu moom kese ndax moom du ci melewu benn yoon gannaaw rek bu Barthélémy Diaz yëgee position bu Sonko am ci bile problème dafa daal di rek piqué ab colère noire maanaam dafa daal di rek mer ba futtu ndax rek moom dafa jàpp ni ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko daf ko daal di trahir trahison pour trahison ñi nga xamante ne waa PASTEF mënuñu digérer benn yoon li nga xamante ne Khalifa Ababacar nag daal na leen ko def ndax ñoom dañoo jàpp ne daf leen a nax comme ab euh, bébé rek ndax moom Khalifa Ababacar Sall dafa remplacer benn candidature féminine ak ki nga xamante ne mooy euh, Pala Samb ab responsable bu taxawu Sénégal parti boobu leen nag xalifa Ababacar Sall mooy ki ko diriger situation bi lee doon na lu metti lool ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ba tax na kii di tijaan Tidiane Dieye jege loolu Ousmane Sonko daal dina rek dugg ci ab groupe bu regroupé la conférence leader de la coalition bu yeewi askan bi ci noonu nag la gisee ab texte texte boobu nag nga xamante ne docteur Cheikh Tidiane Dieye moo ko bind moom la ñu gis ne rek ñu publier ko le 13 mai 2022 par Dakar Actu waaye tamit ak yeneenu site internet ci boobule texte nag ñu ci duut baaram responsabilité personnelle bu xalifa Sall ak ay ñooñaaleem ndax rek dañoo jàpp ne tey jii bu liste coalition bu yeewu askan bi amee risque d'invalidation ki nga xamante ne mooy Khalifa ko euh, waral ba tax na euh, rek ñuy wax ne moom xalifa Sall li nga xamante ne mooy place moom moo ko yitteel waaye respecté benn yoon li nga xamante ne moom mooy euh, loi bi.